لو سناي وردوان بلا ثقة مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدابار مكرمة من أرتلنا وفيها جمع منصارا inna allazina ila sasara qad qasado siyaratin faraqo darayni awsara inna allazina ila sasara qad qasado siyaratin faraqo darayni awsara inna allazina ilaa sarsaara qad qasadoo siyaaratin faaraxoo daarayni aw saara soldaaru maam Cerno laay sargal na ngeen kuy jëf lu dañu koy sargal bu di nelaw soldaaru maam Cerno laay sargal na ngeen kuy jëf lu rëy dañu koy sargal bu leen di nelaw maam Cerno fol na la bi ki la fol na la dootoo fole ku jaajëfee yow sëriñ Aliou cubb yow yaay soldaar bi maay ki la naw sarsaara ngay waaje faw sëy sa tum bi ngay yor foo mu sa jëm fu ne ak jëfu yiw nga fa jëf sarsaara ngay waaje faw sëy sa tum bi nga yor foo sa jëm fu ne ak jëfu yiw nga jëf yow quartier naw na la seex bambaak waa këram bëgg la yow quartier naw na la Seex Bamba waa këram bégee la maa ngi ñaan saw fan gudd ak gudd ci barkeb maam Cerno lépp day gën a leew jërëjëf Serigne Mor ah su ngeen déggee am di ba sukri nag xam ne nag ah, bis bu tedd bis bu màgg di bisub ñaan di bisub sant yàlla Serigne Aliou Thioub soldaaru Serigne Touba daayira Matlabul Fawzeyni àndoon nag nag daayira bu tedd boo xam ne Tazawudu Subaan ak famille militaire woote bis bu mag muy bisu sant yàlla di bisub ñaan bu fas yéene am incha allah wa taala samedi 11 décembre 2021 mi ngi amee ci jaxaw cité l'avenir de base ci buntu kër Serigne Alioune bu nag ca la xew-xew ba di amee fii laay jëlee kàddu gi nag jox ko nag soxna Sala Diop loo wax ci bis bi. maaleykum waa euh, daayira Matlabul Fawzeyni euh, ñu ngi ñëw di wax programme bi nga xamante ni moom la ñuy am le 11 incha allah rabbi fii ci Jaxaaw route de la base journée de prière dédiée à la nation et à ses fils tombés au champ d'honneur sous le ndigal de Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Amdi Modou Mbenda xalif Fall xalif euh, général des Baye Fall sous le euh, Serigne Saliou Touré imam porte-parole de du xalif général des Mourides Serigne Aline Thioub le daïra euh, Tawzatou Choban famille militaire organise une journée de prière dédiée à la nation le samedi 11 décembre 2021 à 15h euh, euh, euh, chez Serigne Aline Thioub, près du camp militaire, sous le parrainage de Monsieur le, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, euh, à Monsieur le Général des Corps des Armées, euh, chef d'état-major des armées, le Général euh, des Forces armées, Monsieur le Gouverneur, à Monsieur le Gouverneur de la région de Thiès, à euh, Monsieur le préfet de la région de Thiès, le commandant de la zone militaire 7, euh, Monsieur le colonel commandant euh, de l'EAI, EAI, Monsieur le colonel euh, de l'ENOA, Monsieur le commandant du corps des BAT, du BAT commando, à Monsieur le chef de corps du BAT blindé, Monsieur le corps du Gabon. début du programme 15 heures 15 heures début du récital euh, par le daïra de Serigne mm-hmm. euh, Bara Cissé khalife général de Serigne Diouga 16h30 début de prestation du kuréel 19h30 euh, prestation des daïra des des rajas 21h euh, causerie. jërëjëf soxna Sala Diop fii la ñuy jëlee kàddu gi nag jox ko nag jàmbaar ju tedd ji. ki daje woon ak Serif Assane Fall naaru Kawsara mus mus maam Cheikh Ibrahima Fall Sidi Ibrahima borom daan ak njabi kookoy kan Serigne Amdi Touba Ndiaye ah, di jëwriñ kuréel làmp loo wax ci bis bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah barke borom Touba loolay maam barke maam Thierno Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara ci turu sëriñ Alioune Thioub jëwriñ eh, maa ngi nuyu mboolem sëriñ si ñëpp ma kenn eh, di ci jiital sëriñ Saliou Touré ak njabootam waaye sëriñ Cheikh ma xam ne bii moo nekk ci bopp bi ñu ngi ko yëgal bis bi. Euh, di ko yëgal sëriñ Moussa Fall mi nga xam ne bii njabootu Cheikh la gi nekk Thiès moo ci mag di ko yëgal sëriñ Cheikh Wunda di ko yëgal sërif Assane Fall moom sëriñ Cheikh Fall baay góor di ko yëgal soxna say bata ay dara di ko yëgal ahlu looyeen gépp te sëriñ am di loo nekk ca bopp ba ñu ngi ko ciy woo képp ku ñu ko yëgal nag ñu ngi la ciy woo di di di la ca di la di ca yaakaar sa teewaay ak say ñaan nu ngi woy itam mboolem dawaar yi nga xam ne bii ñoo nekk ci dëkk bi euh, bu ñu ko tënkee ñu ngi woo daayira maanaam kuréel làmp ñu ngi woo ñëpp euh, jëwriñ yi ci nekk yëpp ñu ngi leen di woo sëriñ Abiballah alhamdulilah sëriñ Abdou Xoll sëriñ Malay Ndiaye sëriñ Alaaji Wàdd ñoo ngi woo ñëpp rek ci gàttal euh, ñoo ngi woo itam daayira kuréel safar moom di daayira yi takku sëriñ Boubacar Diom nekk ca bopp ba ak ñoom sëriñ Birane Diom ñoom ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu kenn ñoo ngi woo soxla yi daayiri sopp maam jaara yi ñoo ngi leen di woo ñoo ngi woo ñëpp rek di woo mboolem kuréel yi nga xam ne bii nekk nañ ci gox boobule. daayira yi nga xam ne bii tënkuwuñ nag ca kuréel yi ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp dañu bari ba bu ñu tàmbalee lim mën naa am ñu bàyyi benn te bu ñu bàyyi nga deen dañu la gisee boolewul kon mboolem lu nekk ci diggante Kawsala Kër Cheikh Madina Fall ñu ngi lay woo daayira yi nekk cees yëpp nag ñu ngi leen ci woo bàyyiwuñu benn mbool loo xamante ni bi daal daay daayira nga bu yëngutu ci yoonu murit nekk ci ginnaaw Serigne Saliou Touré it ñu ngi la ciy woo bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp yàlla yàlla yóbbu ci bis bi bis bi nag noonu ko mm, yàgg baax waxee bisu cant la ak bisu ñaan eh, ñaan nag di lu am solo ndax yonent bi moo nu digal ñaan addu'a ushalaa'ul mu'min yonent bi nee ñaan mooy ngànnaayul jullit dellu na waxin ne adwaaw muqim ibaada xam ngeen ne yax bu ca yokku nekkul borom du taxaw kon ñaan lu bari doole la sëriñ Tuubaa wax ne isiduwaan yan fol mayyatu fil xubur wa yan fol ayyi wa yujibul ujur ñaan dana jariñ ki nekk ci bàmmeel waaye day jëriñ ki nekk ci àdduna wax dafay bijj ci moom ay yool kon lenn lu ci nekk jar na teewe bis bi te bis bi alxuraan ak xasaay rek lañ fi jàng ak i salaatu nabi loolu di njëriñal julli ñëpp yal na yàlla nangu lépp ci dara ji suñ tuwaak Cheikh barke maam Thierno asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Amdi Touba Ndiaye kuréel làmp fii lañuy ñuy kàddu gi nag jox ko nag soxna su tedd ajaratu Jabu Mbay Murid Sadix loo wax ci bis bi. auzu billaahi mina seytaani rajiim laa xawla wala xawata illaa billaahi ilaahil aziim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bés bu ñu duggee ko si bismillaahi rahmaani rahiim dund ba àggalee ko si alhamdulilahi rabbil aalamiina te yàlla may nu ci ndam ñu ngi woo nag daayira Thiès yëpp rawatina nag sunu daayira jigéen yi fàttewuñu kenn ndax yëf fi moom boo koy seet ba mu yàgg xam ni rek dañuy dellu si fay si nag sunu jëwriñ bii tedd bi di sëriñ Alioune Thioub ndax wax te dëgg yàlla lu waay yëngal loxoom a nga ca te nag nit bësam rek la am bés bii mu am nag danuy ñaan yàlla ngeen ñëw fekk si ko si si jàmm ak salaam wuy si ko te xam ne bésu xasaayit la di sëñ am di Touba njaay wax léegi bésu alxuraan la te xasaayit yi ak alxuraan si si nit def rek hmm. yàllaa la koy fay ak sa sëriñ bu tedd bi hmm. kon nag nan ñaan yàlla ñu am si réussite te ñu teewee ko déwén ñu baree baree bari te yàlla defar defaral na ko ba mu baax si baaxu yàlla ak kàntanam barke Cheikh Al Khadim jërëjëf maa ngi leen sant di leen gërëm. jërëjëf ajaratu Jabu Mbay Mouride Sadiq fii la ñuy jëlee jox ko nag Adja Daba Cissé Mouride Sadikh loo wax ci bis bi. waaw bu euh, si yonent bi nuyu ñëpp di dellu si waat nag di yëglewaat sunu euh, bés bi ñu daan def at mu jot te yàlla def ñetti at yi passé amul ndax euh, li fi jotoon a jaar kon nag ñuy dellu si waat di ñaan yàlla bés bi ñu fekk ko si jàmm ak salaam. def ko si jàmm genn ci si alhamdulilah rabbil alamin waaw bu bu ñu paree nag ñu ngi oo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ñu ngi oo mbootaay yi mbootaayu jaxaw yëpp ñu ngi leen di woo jiital ci nag sunu mbootaayu bopp muy biir eh, associé jiite ñu ak eh, ndey mbeng bàyyiwuñu dëkkandoo yi comme ni nga ko daan defee rek dëkkandoo yi ñoo ñu jàppale dina taxawu ba nga xam ne bés bi day jaar si yoon yàlla ak ñoom la kon nag na nga daan defee rek nañu ubbi kër yi yaatal kër yi gan yi dalal gan yi waaw ñu def ko si jàmm ak salaam génn ci si jàmm yàlla may ñu ñu fekkeeti ko déwoon ak jàmm yenn yàlla jàppale ñu waaw ñu sant sëñ Touba bu baax a baax jërëjëf sëñ Touba. jërëjëf sëñ Amar jërëjëf sëñ Amar xanaa dañuy yëkkati ay kàddu rek ci turu daayira Touba Sarsara muy daayira bi nga xamante ni mooy regroupé doomu mag ñi nga xamante ni ñoo daan ànd ak sëñ koso sos fi daayira bu mag tey jii nag ay doomam tegaloon fi daayira yooyu nag ñu ngi ci ràññee njabootu ji seex seen doomam ci ne seen ak ay rakkam teewal leen fi di ci ràññee aussi njabootu sëriñ taala sëy doolam doomam di sëñ jiili sëy teewal ko ci daayira bi di ci ràññee aussi njabootu euh, sëñ Cerno Fall sëñ Sidi Fall toogal ko fi di ci woo aussi njabootu sëriñ Goro Thiam sëñ Kodde Thiam toogal ko ci daayira bi di ci woo aussi njabootu sëriñ Saliou Niang soxna Maguette toogal ko fi moom ak ay rakkam di ci woo aussi njabootu euh, sëriñ Mayacine di ci woo aussi njabootu soxna Nabou Sène di ci woo aussi njabootu sëriñ Naar Ndiaye ak euh, sëriñ Alassane Ndiaye di ci woo daal mboolem daayira boo xamante ni mu ngi ci dëkk bi di yëngu ci Daaru Musti wala wala feneen donc bis comme nag ñu ko daan defee chaque année rek noonu lañ koy defee mais année bi dañoo jël volet bi nga xamante ni dañoo jàpp ni moo ci gën a màgg muy wàllu ñaan gi moom la ñuy jiital donc ñu ngi koy def ci turu sëñ Kara di ko ànd ak mbooloom yëpp di leen woo yéen ñëpp ngeen teewu ji wasalaam aaju billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di sant bu baax tey woote ci bis bi nga xamante ne ñu ngi koy ànd ak sunu baay Serigne Alioune Thioub di ko ñaanal saa borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér ñu ngi woote bu baax ci turu waa Tajawudu Chubaan bi nga xamante ne sunu jëwriñ daa jël liggéey bi yëpp teg ko sunu loxo ñu ngi woote bu baax waa ëxlu xasida bi nga xamante ne ñu ngi fii ci tund Cees rawatina nag fii si jaxaw xam naa ni buñ ci jiitalee waa daayira Miftaalu Xayri day yóbbaale mbooleem daayira bu nekk fii si jaxaw di woote bu baax ci waa daayira asaabul kafi bi nga xamante ne ñi ngi fee ci som dina yóbbaale ñi nekk ci tund boobu yëpp ñu ngi woote bu baax waa daayira tajawudu shubaan bi nekk Medina Fall bi nga xamante ne dina yóbbaale waa tund boobu yëpp kon ñu ngi woote waa ahlu xasida yëpp ñu ngi woo bu baax sunu baay sëriñ Medoune Sow mi nga xamante ne ak waa famem yëpp di woote bu baax sunu baay di ko ñaanal saa borom yeesalaat yërmandeem sëriñ Modou Diop ak waa famille gi yëpp kon ñu ngi woo képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci xasida rawatina ci kuréel bis bii nga jàppee ko sa bës teew ko incha allah kon ñu ngi ciy woo ñëpp di wax ne incha allah dinañ ko taxawee li ci war yëpp ci organisation waa daara Tazawudu Chubaan dinañ ko taxawee bu yàlla kon ñu ngi wàcce foofu suñ kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Baye Mamour Fall bis bi nag ñoo ci woo Serigne Saliou Niang daayira Touba Jaxaw Adja Rama Ndiaye Adja Assou Sy ci woo Serigne Ablaye Guèye chef religieux ci Jaxaw di ci woo nag Serigne Saliou Diouf ak waa fédération Jawaru Nafis yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi Alaaji Cheikh Diop Thiali di ci woo nag Baye Mor Sow daayira Touba Thiali Serigne Wadaan Ndong ah, nekk fa sëriñ Saliou Touré fële ca Thiali ñoo ngi koy woo ci bis bi sëriñ Fallou Sow sëriñ Bara Gueye ñoo ngi leen di woo ci bis bi di ci woo ak sëriñ Moustapha Diaw ak fédération daayira Maam Jaara yi nekk ci diggante ngent Thiali ak Petit Thiali ñoom ñëpp ngi leen di ci bis ci woo nag Adja Assou Cissé ñu ci woo nag Adja Assou Cissé mbootaay kaay baax c'était l'avenir Lourdes Bass soxna Ndeye Mbeng sopp Serigne Fallou soxna Fat Diop di ci woo Adja Ayda Gaye Muxtafina Kine Ndoy Zakirina wa Zakirati Adja Fat Camara soppay boroom daara ji Farimata Caam soppay sëñ Mansour Bal Xawmi ñoo ngi leen di woo ci bis bi di ci woo nag mbëggee mbuub Ansar cinq Ansar 5 di ci woo nag Adja Fanta Kaba Daayira Axyaar Jaxaw Adama Njaay mbootaay Jom Fulla Ngor Adja Joor Mbuub mbootaay sopp daayira sopp Serigne Fallou roy ci maam Cheikh Rayma Fall Jafaama Jaañ waa kër Seydina Muhammad ñu ngi leen di woo ci bis bi di ci woo nag ki nga xam ne nag ah mooy euh, Serigne Bara Cissé bi nga xam ne nag mooy xalifa Serigne Juga ñoo ngi koy woo ci bis bi bu baax a baax a baax a baax di ci woo Yacine Seck soppay Seydina Muhammad jàkk Alpha Combaan Fat Joob Asan soppe sëñ kër si si di faagay dem ba mi ci jawaar ci caali ñoo ngi koy woo ci bis bi di ci woo nag Adja Fat Sarr Adja Fat Sarr nag daayira Sar Sara ñoo ngi koy woo ak mboolem ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi maam bu sa mbay daayira sopp ma maam jaara Matlabul Fawzeyni bis bi ñoom seen bis la fi la ñuy kàddu gi nag ah, jox ko sëriñ Aliou soldaaru Serigne Touba waaye nag ñu ngi ciy woo nag bis bi imaam Kéba Gueye Cité l'avenir route de base imaam Gueye Kangemi imaam Mouhamadou Lamine Gueye Jaxaw imaam Mamour Diouf jàkk Aye Seck imaam Pape Mbaye jàkk Alfu Combal imaam Babacar Sy ah ñoo ngi koy woo HLM fii la ñuy jëlee kàddu gi nag di ci woo nag jàmbaaru nag Serigne Mansour. sëñ Mansour borom daara ji boroom limousine bi borom sañse bi borom prise bi di ci woon ak jàmbaaram ji nga xam ne boo ko gisee rek sa xel dem ci sëñ koo kooku nag mooy sëriñ Habib Gaye mu mu sëriñ Mansour ñoo ngi koy woo ci bis bi ak mbooloom yépp ndax sëñ Habib nag boo ko tuddee rek boo bëggee mu kontaan rek tuddal sëñ Mansour ah mu sëñ Babacar si si di faagay Demba mu ci jawaar fii la ñuy kàddu gi nag di ci woon ak sëriñ Cheikh Diouf. ah Karamex mu sëñ ma Mbacke daje woon ak Cheikh Modou Serigne Modou Boussa Dieng mu moo Mamadou Fadilou Mbacke fii la ñuy kàddu gi nag jox ko Murid Sadix jàmbaar ju tedd ji ki daje woon nag Serigne Koso Mbacke moom sëñ Modou Awa Balla ki daje woon nag Serigne Modou Awa Balla mu maam Thierno Wér Fati Ndamal Daaru Baye Cheikh Awa Balla Modou kii nag moo daje nag sëriñ karaa mu Serigne Koso. di président Al-Namra góor su yiw góor tedd séddoo ñëpp jàpp ñëpp fonk ñëpp bëgg lislaam bépp waaja daal bañ ko ne gerte ak mburu ak suukar bu la gënal dane man muraake rek laa soxla sëñ Aliou Thioub daal mooy muraake nag benn yoon fii la jële jëlee nag jox ko jëriñ jëriñ loo wax ci bis bi alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñu nuyu mbooloo mi képp kenn ku mu mën a doon ak foo mën a nekk ci ñi nuy seetaan ak ci ñi nga xamee ni it ñi ngi jëme kàddu gi ci ñoom di leen jox seen waay ak seen dayoo fas leen a it wax li nga xamee ni moo waral tey jii ñu daje fii woo ñii nga xamee ni ñooy 24 ak yu ak seen 24 TV ak yu mel noonu pour waxtaan ak ñoom ci bis boo xamee ni it lépp lu ñuy yaakaar ci bis yu fi jaar yàlla mun na ko ci def te war na ko def na ko ci it ndax li tax noonu la ñu yaakaar te it sunu borom rek a tax ñu woote bis boobu nag dañu ko jagale sunu way dawlu yi waaye nag kay ñaanal ka ñaanal xamal ni mi ngi mel ni bal boo sànni ci miir bi day dellu ci yow kon yàlla yàlla nangu ko te fajal ñu sunu aajo tey ak yu ëllëg ñu ngi ciy woo waa réew mi waa bitim réew bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn bàyyiwuñu fenn ñu ngi ciy woo sunu xeetu mbokk yëpp moo xam ne lii ci wàllu ndey wàllu bàyyi ak ku mu mun a doon ñu ngi ciy woo bépp xarit bu mu mën a doon ak foo ko doonee ñu ngi ciy woo it daayira yi ak foo mun a doonee daayira ak ngir goo ko bokkee ñun ñëpp rek ñu ngi la ci ñu ñu ñu ngi la ciy defal cër léegi nag dafa am solo. ñu wax it li tax tey jii ñu ñu ñu ñu jàpp bis bi ci waxtu wi ndax yàlla dafa dogal ñu daan yëngu ci lii ba benn bis ñu dem it ci sëriñ bu mag bi di sëriñ Saaliwu mu ñaanal ñu ba pare ñu daal di dem ci sëñ Modou Aminta Fall xalif général de Baye Fall 2004 fekk na it jamono jooju dëkk bi metti rawante nag ci wàllu armee ci ci li ñu ci nekkoon mu dëggal ñu siit ni jàpp na ni ñaan yi nuy ñaan moom la sunu boroom di ñaan kon nañ koy saxal loolu moo tax nag ñu jël ko mu yóbbaale yeneen bis yi bis yooyu nag dañu koy jëlaat tegaat ko ci loxo ki nga xamee ni moo fi nekkal sëriñ Touba di Serigne Saliou Touré yàlla na fi yàgg te ñu yàgg ci gannaawam mu tegal ñu ko ci ñi nga xamee ni ñoo féete kaw ndax moom la war gannaaw na buñ ko ñaanee la mu yàgg fi na wéer it ñi ngiy jëlaat kàddu gi ak wax ji ak bëgg bi ak jëf ji ak sàkkuteef gi di ko tegaat ci ki nga xam ne mooy sunu wasila di sëriñ Modou Kara Kosso Asolo yàlla na fi yàgg te wér ñu yàgg ci gannaawam te di ko yëgal na képp koo xamee ne rek ci sëriñ yi nga fi nekk ndax kenn ku ci nekk rek sunu kilifa nga li ñu fi wax nag yóbbaale na lépp waaye daanu moo dul daj moo dul daj fépp moo tax ñi ngi ànd ak liggéey bi sunuy jëwriñ ku ca mel ni maam bu sa mbay bi nga xam ne ni moo jiite Matlaboul Fawzayni daayira soxnay soldaar yi waaye di kat di ko ànd ak it soxna Fatou saar bi nga xam ne ni moo jiite daayira Touba Sar Sara mi nga xam ne it moom la ko sëriñ ko sa tegoon ci loxoom di ko ànd ak it sunu njaboot kii nga xamee ni it mooy sëriñ Umar Diop mi nga xamee ni mooy njiitu tasawur shabab ñoom it yàlla dogal na organisation bi si seen loxo lañ ko teg yal na yàlla defal leen ci ndam lu faw ko seen jot li gën ci wax nag mooy mu gàtt te tegtalu mënul weesu li fi nit ñi wax ñi ngi woote daal te woote bi ñu wootee lépp loo xamee ni nit yaakaar na ko ci bis bu mu mën a doon yaakaar nañ ko bii ndax ki ngay fay kenn la mooy yàlla te yàlla moom ñun jotuñu ko waaye teg na fi ñoo xamee ni ñooñu jot nañ leen te ñooñu it dinañu jottali. wax a wax a wax ba du ñuy wax ñi nga xamee ni it ñooy ñoom ñooy ñun. te it sëriñ Mor Kane yal na yàlla fayal ñu ko it moom la fi bàyyi ak képp mu fi bàyyi di dooma ji di bàyyi Cheikh it yal na yàlla dolli ko jàppale defal ko ndam ci li muy def kon ñu ngi ci woo waa mbaaleen ak li ko wër teg ko ci loxo Baye Cheikh mu yëgal ko képp mu ko war a yëgal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Alioune Thioub soldaaru sëriñ Touba yal na yàlla guddal fan yi bis bi nag incha trois heures daal fas nañu yéene euh, sëriñ Baara Cissé xalifa sëriñ Juga Cissé dana ñëw euh, wàcce kaamil yi mooy la ñuy ubbee bis bi di ci woo nag ah sëriñ Abdi Touba Ndiaye ci waxtaan wa di nuyu nag sëriñ Moustapha seen jàmbaaru Cheikh Mat Bamba Seck sëriñ Jibi Mbeng sëriñ Boubacar Njëgéen moom sëriñ Ousmane Njëgéen borom sutura daay man dana teew ci bis bi di ko yëgal nag su euh, directrice rajo BSFM ah soxna maam seen seen bis bi nag sa bis la dàgg njëgeen ah di directeur nag vingt seen 24 ñoo ngi koy woo ci bis bi groupement président groupement des terres de Thiès kooku nag mooy sëriñ Mut Seck ñoo ngi koy yëgal bis bi di ko yëgal nag sëriñ Ibou Thiam taalibe Cheikh Abdou Mouhaïmin Mbacke imam Touba Diaw mu Cheikh Mamadou Moutada ibnu Qadimu Rasul di ko yëgal képp kuy wax ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadu rasulillahi euh, incha allah daal euh, samedi 11 décembre 2021 fii lay doon nag ci jaxaaw c'était l'avenir route de base ci buntu kër Serigne Alioune Thioub yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp am jàmm ci daraja yi sanga bu tedd Seydina Muhammad Muhammadu Rasulillah yaa fay xal-xal ximaan bil xëraw yàllaw yaa fi suyaasal amre yaa fay xal-xal ximaan bil xëra nafsi wa diini suba lii wal walat ومسكني لك وديعة نابت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة نابت